ñu Fandène diggam ak cees di juróom-ñaari kilomètre ci village bi ñuy wax Kër Mor njaay am na musiba boo xam ni ma nga fay xew mu doon nag ab lor woo xam ni dana indi ay gàllankoor ci liggéeyu askan wi nga xam ni ñu bari ci ñoom sàmm ak mbay ak yu ni mel la ñuy musiba boobu nag da ngeen koy gis nii ci image yi ab usine la boo xam ni benn doomu waa Chine moo ko fa bëgg amal du usine boo xam ni fonderie lañ koy wax di usine buy togg weñ doomu waa Chine boobu nag ci jàppale yenn doomu waa réew mi xàppati na fa fukki hectare ak ñett mu doon nag loo xam ni dana andi ab gàllankoor ci activité yi nga xam ni ña nga fa daan am kem doomu waa Sénégal bi nga xam ni dafa jël alalam ju bari def ko ci mbay doon ci yaakaare liggéey. Sinaaw daal ñun moom jékki-jékki ñëw gis ne waaw premièrement daal ñun loolu lañ ci am ñu dem ba ci biir daal ñun ñu usine bi usine fer la te xam nga usine fer moom baaxul ci ay garab nit ki war maa yaakaar na soo bëggee avertir dara dem fekk fa ay nit war ngaa waxtaan ak ñoom war ngaa avertir dara ndax baax na ci ñoom wala baaxul ci ñoom surtout koo xamante étranger la te ñun doomu réew mi lañ dëkk ci réew mi war a tekk ci réew mi bu étranger jógee ci àll bi ñëw avertir ci suñu wet yàqal ñu loolu baaxul. parce a dimbale ñëpp. comme ñun bu jël jël nañ suñu décision pour dimbal suñu bopp dañ war a jàppale. canal seera ak ak usine bi baaxul si moom ak ak dëkkandoo rek yooyu daal baaxul si ñoom daal parce que bu xamoon ne lii lii liñ fi professé konoon duñ ko duñ ko duñ ko nangu. Mhm. voilà duñ ko nangu. réewu Afrique yi nag bokk nañ ci réew yi nga xam ni ñooy gën a sonn ci musiba bii ñuy duppee changement climatique lu bari ci ñoom nag industrialisation di ko waral di doon loo xam ni dana indi gàllankoor ci mbay mi nga xam ni moom moo war a taawu ab yokkuteem ci wàllum koom-koom industrie yi suñ leen déplacé yóbbu leen ci àll bi daanaka lépp loo xamante ne ay superficie la woon ñu fa dencoon ngir bay ko fa la ñuy jaar ñàkk ko te teg si industrie yooyu noonu wala xeetu industrie yooyu noonu bëri na ay xeetu substance yoo xamante ne mën nañ koo dégager tey jii mën na am ay impact yoo xamante ne day nossif wala day négatif ci santé wu nit par ricochet dina egg ci nit parce que nit moom daanaka lépp loo xamante ne rek parce que àdduna daa am lu ñu woowee la alimentaire tey jii nit ki lépp loo xamante ne da koy jëfandikoo daanaka ne moo nekk ci suuf après mu yéeg dem ci malay après mu yéeg soo a agsi ci moom. xeex bi nga xam ne nag warees na ko xeex musiba bi nar a bàyyeekoo ci usine bi mu di li fi nar a bàyyeekoo te mënul nekkaaleeg mbay mi ak càmm gi fii ci diwaan bi di Kër Mor Ndiaye. bile xeex nag askan wi fi yeewoo ñoo ko war a téyal seen bopp kem ni ko mouvement aar sa moomeel defee ci jamono ji nga xam ni déggoon nañ central à charbon ci yi usine fonderie fer ñëpp xam nañu euh, tey jii fa ñu koy toggee musiba yi fay am boo demee caaro yi gii rek yàggul dara ñëpp xam nañu li doon xew ngañ jaw ngañ jaw quartier boobu gone yi dañ doon dee comme ay weñ li ko def mooy ne seen hëtër yëpp bu ñu noowee plomb bii gars yi doon liggéeyee moo leen andil musiba yooyu bon foofu bu ñu demee tey ji ñu ne dañ ko fay def loolu dina nekk loo xamante ne communauté bi ak ñi yëngatu si environnement ñëpp dinañ si jog xeex ñu bari itam dañuy jàpp ne ñoom du ñu mën a xeex parce que suuf sa ñoo ko jaay mais am nañu droit ñu jaay seeni suuf nit kii moom suufam bu gisee ku koy jënd te mu mën si faj ay aajoom da koy jaay wante nag ki ñu koy jaay du n'importe quoi la fay def tey jii nag Kër Mor Ndiaye moo janloog bile musiba dëkk bi nag ku ko xam rek xamee nga ko takkuteem ci wàllum mbay ak wàllu càmm nar naa am nag ay jafe-jafe yoo xam ni amul doole ak kàttanu